Khalifa Sall ak fi mu jaar ci yeewi dañ ko yuuxu yuuxoo au tim c'est une forme de violence c'est une forme d'humiliation d'un qui a tout donné qui a tout sacrifié mu taxaw nga yuuxu ko durant dix minutes mais c'est une violence ça a fait mal et pourtant vous en parlez a fait mal ça me fait mal en tant que démocrate ah oui absolument parce que moi je dis je suis un produit de la démocratie sénégalaise moi pourquoi j'ai pas peur même parce que j'ai une formation d'abord politique d'une défaite damay jàpp ni bu ma demee bu may dem élection maa ngi jàpp ñaar rek moo ci mën a nekk. Mhm. ma gagné et su ma ko gagné dama koy def ak ak tey su ma perdee kenn du ma dégg mënuñ ñëw nag nga nekk fi élection nga ragal a perte ba mu lay defloo yenn yi. en prenant la défense de Khalifa Sall vous renforcez non, la conviction la de ceux a je n'ai pas pris la défense de Khalifa Sall je prends la défense d'un principe. Mhm. man xam nga lii. lii nii Khalifa Sall daj suma xarit Ousmane Masek yal na ko yàlla xaare àjjana mos na koo daj ci biir PDS à Saint-Louis ñu jël parole ñi ñu yuuxu te il a fait bilan extraordinaire à à Saint-Louis mais ça me choque parce que la démocratie ku mënul déglu keneen kii mais bu àggee ci nguur gi musiba am mhm. la démocratie c'est la contra